Ah, Yankoba Sagna ñu ngi lay nuyu monsieur le maire bu Sindian maa ngi leen di fay di leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal tamit seen euh, auditeurs yi. Mm-hmm. Euh, di leen di gërëm ci euh, li ngeen ñu may ñu mun a joxe suñu kàddu ak suñu gis-gis si mm-hmm. li nga xam ne moo. ëmb réew mi te mu nekk loo xam ne euh, concerné na ñun ñun tamit. Sindia nekk ca département bu Bignona nekk ci euh, diwaanu Ziguinchor tey jii ñu wax ci li nga xam ne mooy dagg euh, garab yi ñu gis mu gën a bëri ci sa diwaan googu nga xam ne yaa fay maire tey mën nañoo wax ndax phénomène bi moo ngi reculer wala moo ngi avancer. phénomène bi daal boo leen buggee dégg dëgg mooy phénomène bi taxaw. Euh, gorum garab yi ci anam yi nga xam ne du anam yi ñu lewal hmm. ak euh, diko ko euh, yobu dëkk ba dëkk mu ngi continuer di am si suñu zone boobu maanaam day am ay ñoo xam ne ay samba yi yuy jógee ci yeneen dëkk hmm. yeneen réew de général générale ñoo xam ne ay Gambie la jóge jógee ñëw dugg ci Sénégal ñoo gor euh, euh, ay garab ci àllum Casamance bi di leen di yóbbu foofu Gambie te lu ñu constaté ñun lu ñu gis parce que ñu ngi si frontière bi. Mm-hmm. lu ñu gis mooy si beneen côté frontière bi mooy si côté Gambie bi. Mm-hmm. da ngay gis ay sièr yi ñuy taxaw comme boo ko euh, jéemee méngale ak fii nii da ngay comme ni ngay gisee boutique yi ñuy taxaw koñ koñ bu nekk nga gis boutique. Mm-hmm. noonu nga koy gisee fële xam nga sièr yi loo xam ne. Euh, lu yomb la mhm. te siège yi du loo xam ne da nga koy teg fii après teg beneen siège yi fële siège yi dafa cher te siège yi si lu muy liggéey si bant lay liggéey naka lañuy jël ay lu ëpp fukki siège yi teg ko si benn diwaan boo xam ne maanaam boo jëlee comme euh, Dakar ville mhm. nga xam ne réyul nga am fa lu ëpp fukki siège yi te siège yi ñuy liggéey ñuy liggéey du ay siège yoo xam ne nekk ñu di liggéey te mu nekk ay siège yu bees du ay siège yu màgget te mu nekk ay yoo xam ne am nañu autorisation wu dëkk bi nga xam ne foofu lañ nekk mooy Gambie. kon da ngeen bëgg daal mooy jël si euh, garab gi wala sax bant yi di ko yóbbu. waaw pour euh, joxe euh, vraiment kaddu boo xam ne bu leer la boo xam ne buñ ma ko laajee dinaa ko mën a waxaat te mm-hmm. joxe si ay firnde. Mm-hmm. du ma nee Gambie moo koy def parce que su ma nee Gambie moo koy def cela dire que état Gambie moo koy def. Mm. mais damay naan ni ñu koy def ñu koy def. Euh, ay autorité réewu Gambie xam nañu ñu koy def te euh, jëluñu ay matukaay yoo xam ne day décourager day tax ba phénomène boobu mu bañ a am lan moo tax ma koy wax mm-hmm. parce que gor garab yooyu ñuy gor Casamance dañ koy yóbbu sii ko euh, biir Gambie lañ koy siyee oto bu koy gor oto bu koy jël si ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jël si essence bi nga xam ne moom la ñuy def si oto yooyu essence bi Gambie lay jóge oto bi immatriculation Gambie la parce que ñun jàpp nañu ay oto yoo xam ne immatriculation wane nañ ko fépp te fu mu nekk nii même yéen boo leen moo joxee seen kii mu yónnee leen oto yooyu. fotogu mm-hmm. nañu oto yi jàpp nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def loolu si suñu àll bi jàpp nañ leen yóbbu leen fu leen war a yóbbu ba ñu ngi leen di ñu ñu ngi leen di topp mm-hmm. euh, essence bi nga xam boobu essence boobu jënd ñoo ko euh, Sénégal buñ koy siyee Gambie lañ koy siyee donc ça veut dire que chaîne de valeur boobu c'est-à-dire que coupe abusive bi mooy gorum garab si anam boo xam ne euh, lewul mm-hmm. lewul gorum garab boobu profité wul Sénégal benn yoon parce que yaa ngi wax sànq est-ce que amul ay complicité ci population yi. dama ne euh, tamit euh, fan la autorité yi nekk parce que tamit duñ ñëw sa réew jël fa dara yóbbu ko réewu jàmbur te du ngeen ko yëg. mais suma la waxee ni ñi di def loolu ay guddi lañ koy def man wane naa ay ay garab yoo xam ne bañ koy dagg ci guddi gi la ay partir de 19 heures ngay dégg ay série ñuy yëngatu si biir àll bi c'est-à-dire gars yi dañuy profiter ci situation bi nga xam ne moom moo nekkoon ci Casamance ci jamono yi di ñëw. di jël profiter ci population yi dañuy xaw a tiit guddi gi pour mun a génn parce que doo xam soo génnee fan ngee teg sa tànk ak lan ngay fekk foofu. population yi bu ñu ragalee génn force de défense et de sécurité ñu boole woon leen ci biir lépp xeex tey seen taxawaay xanaa santiru leen ko. Euh, sentir nañu seen taxawaay parce que ñu ngi gis ñoom garab yi ñuy jàpp parce que ñoom ñu ngi jàpp tamit waaye euh, dama ne ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci loolu. Mhm. ñoom tamit. Euh, dañuy ànd ak jamono c'est-à-dire que bu ñu jëlee force de défense yi mooy militaire yeeg gendarme yeeg euh, policier yi ñëpp ñu boole leen ci xeex bi mm-hmm. ñoom tamit ñoom ñoom sambaabo yi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci loolu ñoom tamit dañuy changer doxalin gën a euh, yokk seen doxalin pour que ñu mun a def lu ñu daan def donc loolu moo tax dañuy am ay oto yoo xam ne ay oto yu bees ak ay oto yoo xam ne mun nañu lenge oto mun nañu lenge benn garab bu ñu dagg maanaam en moins de une minute mun nañu dagg benn garab lenge ko découper ko mooy euh, euh, saasaaxe ko teg ko ci seen kii bi yóbbu dem donc dinañu mun nañu lëkkaloog ña dëkk ca dëkk ba moom lay wax noonu ni du ñàkk mu am ay quelques complicités ay ñoo xam ne mais ñooñu luñ si am ay miettes la xoolal benn garab boo xam ne am na lu ëpp téeméeri at euh, kenn ñëw am si fukki junni daa di euh, noppi euh, ñu jël garab bi ñu yóbbu loolu du ñàkk waaye li ko gën a garaawal mooy bu ñu fexee ba trafic ba a am cest à di que kenn ku demoon ba gor garab après amul fu muy jaayee garab boobu amul fu muy siyee garab boobu amul fu muy génnee garab boobu yóbbu ko à l'international mais cela dit que phénomène bi du mun a dem mais actuellement dañuy euh, ñii di ñëw di gor garab yi dañuy am ay këyit yu leer ay këyit yoo xam ne euh, réew Gambie moo leen ko jox c'est-à-dire que si signé par des autorités gambiennes ñoom ñoo signé ay autorisation de coupe de bois jox ñooñu mais ñooñu bu ñuy dem ñoom du ñu jéem a calculer garab bi fan la jógee ñoom l'essentiel am nañ seen autorisation fan la waa ji goree garab bi ñoom du ñu jéem a occupé c'est ça boo demee pooru Gambie da ngay gis ñu fay génnee ay garab ay ay ay ay ay planches yoo xam ne si ay garab la jógee ñu leen di génnee yóbbu leen bitim réew. Mm-hmm. te planches yooyu ñoom xam nañ si ay garab la jógee mais si yan garab la jógee c'est-à-dire que euh, commerce illicite commerce illicite de bois bi nga xam ne moom moo am mu nekk commerce. transfrontalier entre ñaari dëkk yoo xam ne ay dëkk yoo xam ne dañu tuddee seen bopp ay dëkk frère mhm. ak commerce boo xam ne commerce trafic international illicite de bois bi nga xam ne day génn euh, à partir de port Gambie dem feneen te loolu mais lan moo tax planches yooyu du ñu génnee port Sénégal ñu dem du ñu génnee port Sénégal oto yi koy jël du ay oto Sénégal essence du oto Sénégal ñu koy génnee yóbbu du ñu ay sénégalais lu dul euh, comme ni nga ko waxee ne ay quelque benn ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi fële toog xam nañu te complice ñu ne ñooñu lu loolu servirul kenn. Mm. donc moo tax ñun euh, ñu ñaawlu loolu ñu ñaan gouvernement Sénégal si ndaje bi nga xam daje yi nga xam ne daf koy am ci ak euh, réew yi nga xam ne yooyu ñoo ko ñoo ko sës. Mm-hmm. muy Gambie ak ñeneen. mu ciy waxtaan ci lu ñu naan commission mixte ci naka la ñuy def ba gorum euh, garab bi nga xam ne dañ ko war a criminaliser considérer ku ku dagg garab comme kenn koo xam ne dafa rey nit waaw képp koo xam ne dafa gor benn garab dañ ko war a considérer comme ku rey nit mhm. voilà ku gor ku gor garab ci anam yoo xam ne kenn autorisé wu ko kenn lewalu ko dañu war a considérer ko yow danga nga da nga da nit ñu criminaliser ko ñu topp la xam Euh, ñan ñooy sa complice si loolu ñan ñooy sa complice au niveau interne au niveau national ñan ñooy sa complice au niveau transfrontalier si beneen côté frontière bi mais xam aussi ñan ñooy sa complice à l'international pour que ñu débaane ko yuuxu ko jooy ko fépp fu ñu fu ñu ko war a jooyee te loolu euh, xam naa ni buñ si jógee normalement dëkk yi nga xam ne signé nañu accord de Paris sur l'environnement te gis nañu dérèglement climatique lu mu nekk di créer te dérèglement climatique lu koy def mooy Euh, nu ñuy saax euh, saaxe suñu dëkkuwaay yi mooy suñu environnement mm-hmm. nu ñu ko saax saaxe de manière désorganisée mm-hmm. euh, ak illicite loolu moo ñuy jural ay crise sanitaire yu mel ni ay mbas ak et cetera mais mbas bi ñuy bi ñuy dund nii ñu tuddee ko coronavirus am na mbas bu ko jiitu mooy mbasu environnement mooy mbasu suñu dëkkuwaay yi mbas bi nga xam ne moom moo attaqué suñu àll yi mbas bi nga xam ne moom moo tax ba Euh, suñu euh, euh, suñu dëkk yi seen ñu ngi waaj nekk désert parce que gaa yaa ngi gor ay garab. te duñu delloo gar duñ duñu saxal ay garab. d'accord donc voilà. monsieur le mm-hmm. maire ñu wax ci leneen muy ñi nga xam ne tey jii crise casamançaise bi laaloon na leen ba tax na ñu daal di daw làkku tey programme yi ñu leen di delloo siwaat fu ngeen toll ci processus yooyu nga xam ne Sindian tey bokk na ci zone yu yi gën a am phénomène boobu. waaw euh, tey ma commencé ci programme d'éminage boo xoolee euh, ay jamono ci ginnaaw da ngay dégg ñu ne bon programme d'éminage humanitaire yi ñu ngi am euh, dans la basse Casamance ñu naan jàpp nañu ay ñuy déminer et cetera man lu mu leen bëgg a xamal daal mooy Sindia amagul programme déminage humanitaire amagu ko programme réel programme de déminage nga xam ne gars yi dañu di liggéey pour déminer pour mun a ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dellu si ñëw dëkkaat si seen dëkk yi nga xam ne euh, li fa xewoon jamono yi passé moom moo tax ba gars yi daal di daw dem làqu ji pour ut euh, fu gën a euh, dal seen xel mm-hmm. pour ñu mën a dellu si il ñu dalal seen xel ni fi ngeen di dem dëkk noonu amul ay ndell yu fa nekk donc am na jàmm ji macha allah alhamdulilah ñu ngi laal bant di ñaan yàlla jàppale ñu euh, mu continuer ñaan waxtaan yi nga xam ne ñoo nekk di am ba ñu gis ni jàmm jooju mu ngi nekk di sax ci zone bi. Mhm. ba ñu bëri ñu ngi euh, delloo si seen xel pour delluwaat si seen dëkkuwaay reprendre seen activités yi fa nekkoon ñu ngi ñaan jàmm jooju mu continuer mais ñooñu pour nga dalal seen xel il faudrait que fu ñu war a ñëw euh, toog noonu. zone yi nga xam ne man waxuma zone boo xam ne ñoom toog parce que ñun waxuñu ci programme mu déminage militaire ñun déminage humanitaire mooy déminage bi nga xam ne nit ki lay viser naka la nit ki di def ba fu muy ñëw di toog noonu mu am assurance ni ndel nekk fa parce que def nañu ne dépolluer ne mooy nettoyer nettoyer nañu euh, zone boobu loolu amaguñu ko dans le Sindian kooku man maa koy wax am na ay activité de sensibilisation euh, ay benn lay doon yoo xam ne dañu woon leen ni boo leen gisee benn affaire bu mel nii woo leen gaaw numéro euh, numéro vert nangam nangam et cetera ainsi de suite boo gisee mais naka nga war a def pour que nit ki war a traumatiser wu parce que boo ko nee boo gisee sensibilisation boobu c'est day traumatiser nit ñi ne leen boo leen gisee ngeen woote léegi boo gisul ba mu dal sa kaw donc je pense que lu am solo mooy nga ñëw dépolluer après ne nit ki ah fii de jaar nañ foofu nettoyé nañ fa mun ngeen ñëw dëkk si normalement boo paree ci loolu la nga war a def mooy lan mooy nga dimbal ne ko ni euh, da ngeen di ñëw ngeen tabax ñun ñu ñëw jàppale leen ci li ngeen di teg si seen kër yi mooy ay chevron euh, ay laat ay ak ay ñoom zinc ak ay ñoom seen pour que ñu mun a dellu si seen village yi la ñoom laajuñu ay këru étage parce que euh, fu ñu dëkkoon nekkul ay këru étage. Mm. ay këru suuf la ay këru ban yoo xam ne suuf suufu ban lañ ko tabaxee donc même bu ñu amee ay zinc ak ay chevron loolu euh, dina la mën a mën a permettre ñu dellu si mais bu see ba pare yow da nga daw làqu ji yow am nga famille am nga ay doom euh, yow am na si ñoo xam ne dañu feebar. Mm. dañu am feebar yoo xam ne dañ tuddee feebar chronique soit ay diabète wala ay feebar yoo xam ne day laaj de temps en temps ñu def suivi au niveau amul poste de santé. mais ki nga xam ne dafa daw làqu te fu mu nekk noonu euh, réfugié euh, dëkk bu mu nekk muy Gambie ñu ngi koy jàppale muy dem di faju hmm, euh, mu bugg a dellu si amul hôpital fu mu war a dellu si noonu pour toog amul hôpital mhm. kooku nu muy def te moom dafa dafa ànd ak feew maladie chronique des préféré mu toog foofu ñëw donc am na ñu bari ñoo xam ne bëgg nañu ñëw mais manque de comment on appelle ça service sociaux de base yooyu tax na ba ñu ñëw wala école am nañu ay doom yow boo àndee say doom il faut ñu dem jàngi école mais ba école na ñu dugg bu nekkee foofu ñu nekk noonu amul école de proximité. ndax amul nu mu taxawee euh, ci wàllum euh, développement maanaam jàppale ñun ñi su ko defee buñ ñëwee. fekk dara ànd ak tabaxul école bu nekkee tabax na école nekkul Sindia ànd ak tabaxul poste de santé bu nekkee def na ko nekkul Sindia ànd ak réhabilité wul deful réhabilitation école wala réhabilitation poste de santé bu nekkee def na ko nekkul nekkul si njàng lu dul euh, ay sensibilisation ay regroupé nit ay et cetera ainsi de suite euh, leneen lu mu def si ay chevron mooy ay tolzeng en tout cas ñun daal yëguñu lu ñu mën a xam daal ñun mooy si lu ma wax ma yeneen maire yi yëguñu mais maire Sindian daal euh, mun na wax ni kenn impliqué wu ko ci loo xam ne jëm na ci côté boobu mm-hmm. te mu nekk loo xam ne am na ñu koy solicité parce que ay euh, daw làqu dañuy ñëw di ma sollicité naan ah, ñu bëgg nañu dellu si mais xamuñu ni ñuy def euh, beneen élément bi mooy am na suñu bëri ñoo xam ne euh, amuñu kayit amuñu këyit amuñu kayit donc bu nekkee yow ki ngay jàppale ki ngay dimbali donc koy naan ni pour nga bénéficier si lii il faut nga am kayit nangam maanaam il faut nga am carte d'identité te kooku ba muy daw depuis jamonoy Abdou Diouf la mhm. soit depuis quatre-vingt-dix-huit wala jamono Abdoulaye depuis 2000 kooku boobu la daw ba léegi te carte d'identité yi bees ñoo am carte yi bu ñu amee moom amul carte d'identité soo ko laajee carte d'identité fu muy jëlee carte d'identité pour ñëw jox la pour mu mun a bénéficier si euh, dimbal bi ngay joxe yow donc il faut faudrait que ñu impliquer autorité locale yi nga xam ne ñu ngi nekk en contact avec ces populations te euh, ñu mun a attester certifier ne kii nii ah am naa firne nii euh, waa dëkk bi la lii ak lii ak lii ñii fii la cosaanoo ñii ak ñii ñooy et cetera pour nga mun a def intervention bu bu tub mais boo munee euh, ñun mairie demembrement état la yéen programme programme état ngeen il faut ngeen travailler en synergie avec les autorités locales yi nekk sur place pour que ngeen mën a euh, développer maanaam lu tubaab di naan efficacité ak efficience ngeen atteindre seen objectif li ngeen bëgg a def mais ci ay njëg yoo xam ne ñoo gën a yomb tey bu ñu impliqué woon autorités locales yi lu ñu daan dépensé si loolu mun na gën a néew par rapport ak li ñu doon dépensé bu nekkee ñoom kese ñoom ñooy dem euh, parce que euh, ñu si bëri euh, dañ leen di tromper il se trompe d'interlocuteur <laughs> wala ñu appuyé wu si ñoo xam ne dañ leen di demander ay frais alors que boo jaaree ci maire bi maire bi dispositif état la ci état la bokk démembrement état la Euh, du la laaj yenn yenn frais yi pour mun a def yenn action yi. mais da ngay mettre en place un processus parallèle lu ñu naan processus parallèle c'est-à-dire yow am nga démembrement état mun nga appuyer ci ngay dem créer beneen à côté boo xam ne moom day financer ay frais de gestion. moom day am ay frais de gestion ay yoo xam ne yow yaa koy jox. mu dem di def ay liggéey alors que mun nga appuyer koo xam ne moom loolu mooy liggéeyam sur le terrain. donc euh, loolu nekk na loo xam ne euh, manqué na ci côté ensuite tali. il faut ku ñëw dëkk si benn côté mhm. am tali boo xam ne moom mooy dem ba foofu donc euh, am na lu positif loo xam ne ñu koy gis mooy euh, ay programme lu mel ni PUMA programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers mhm. euh, am na lu rëy lu mu nekk di di def foofu PUDC mu ngi door a ñëw fàttaliku ngeen PUDC xam nga axe agro silvopastoral bi la touché woon mhm. mais bañ ko interpellé monsieur le président de la république mu nangul ñu Euh, ñëw na inauguré euh, lancé euh, deuxième phase bu PUDC ne dina ñëw ba ñëwee ñu ngi commencé di def na lu yem am na ay quelque forages yu ñu def. Mhm. am na ay quelques équipements post récolte yoo xam ne andi nañ ko pour alléger travaux li liggéeyu jigéen ñi. Mhm. waaye des na si côté tali yi. tali yi nga xam ne ñoom ñooy désenclaver zone yooyu. Mhm. dégg ngeen ñu ñun ñuy xeex lu jëm ci boucle du Foni. président am lu mu ñu si dig mais ba léegi. Euh, liggéeyu boucle bi commencé guñu. d'accord commencé guñu. monsieur le maire xam naa euh, dinañ la booleeg waa gox bi rek ngeen gën a yaatal waxtaan wi ndax li ñu cëraloon ci ay simili jeex na. Euh, ñu ngi leen di jaajëfal daal bu baax a baax. ñu lay jaajëfal yow it bu baax a baax. Yankhoba Sagna la woon muy mm. maire u Sindian ñu lay remercier encore une fois monsieur le